yes wala beaucoup, voilà à vous de choisir comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois parce que man suis rek lay top top ma kenen. j'espère que vous allez bien là, mes fois. comme d'habitude vous êtes en compagnie de votre grande chroniqueuse Kenza 221 mais bien sûr borom matricule 221 xaritou ñep. et la télé ak jamm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Hum. J'aimerais bien savoir, pour abonner au fait. abonnez vous J'insiste, abonnez vous Et vous pas activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos qui suivent vous naa leen actualité hip hop gal vous leen xam ci man votre grande chroniqueuse donc abonnez-vous et activez en même temps la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent. Vous jouez à 1xBet, n'oubliez surtout pas d'utiliser mes codes promo KENZA221 ou KENZA dina leen permettre de gagner bonus de 100% pour le premier dépôt jusqu'à 65 000 francs CFA waaye tamit yéen ñi nga xamanteni Melbet bu len faté à chaque fois utiliser sama code promo KZ221 c'est écrit en majuscule et c'est collé Pour tamit dina len permettre de gagner bonus de 250 pour le premier dépôt jusqu'à 150 000 francs CFA ce ne sont pas des lol. donc si vous di jouer daw len utiliser sama code promo Tan sa bu la neex la muy 1xbet wala li nga modi Melbet. Alors sama gars aujourd'hui je vais parler sur la toute nouvelle vidéo de Samba Peuzzi en featuring avec BMJ intitulée Brick. donc dama ci wax ñëw euh, joxe ci sama point de vue sama xalaat sama gis-gis ci li nga xamné modi euh, vidéo bi ci sound bi et tout after à la fin de la vidéo yéen tamit ngeen mëna a joxe seen xalaat ci commentaire parce que comme ni ma koy faral di waxee à chaque fois hein yéen mom euh, franchement. seen xalaat day compter bu baax a baax a baax parce que man dama ciy jàngat lu bare bare bare moo tax dama koy soxla damay soxla à chaque fois ngeen di commenter yi tu yéen ma gën a xam mais avant ñu ciy wax nañ àndandoo xoli un peu sur la vidéo ñëwaat léegi léegi let's go su baaxee ñu dem. pour jéggi ndox la fii dañuy taabu léegi dañuy taabu léegi. bon gis ngeen tuuti ci vidéo bi elle est intitulée brique. bien sûr mënuñu ci laal lu bari tok rek lañ ci mëna laal sinon rek YouTube def ñuy laaj droit d'auteur yéen ma alors d'après mon analyse mën naa ni seen sound bi bokk na l'un des meilleurs sound actuellement parce que quoi qu'on puisse dire publicu rap Galsen lii la ñuy xaar ci yéen artistes yi le rap conscient le rap qui nous motive le rap qui nous éveille Actuellement, Galsen a besoin de vous. Le pourquoi Parce que vous êtes les porteurs de voix. Faut toujours dénoncer tout ce qui se passe dans le pays. te kuna ku ne xam na ni jamono ji Galsen dafa metti dafa metti trop sax côté yépp a metti côté injustice côté ñak liguey bi côté euh, li de yi di jël gaal yi di dugg di dem Espagne Big Paté sax dafa sonn loolu ñun ñep xam ko donc du coup genre bu amé ci dëkk bi population bi du ko dundu diko metti lu teyit diko ñaxtu dañuy soxla porteur de voix yi génn dénoncer loolu dalal xelu jeunes yi motiver leen teg ci sensibiliser leen dañ koy soxla à tout moment. alors suñu ñëwee ci clip bi nag boo ko seetaanee automatiquement tu peux comprendre à travers les images parce que ces dernières parlent d'elles-mêmes. clip bi yëpp ay message lañ jàllale dafa nice teg ci image yi day wax de un clash nañu politiciens yi ci benen anam genre clash bu civilisé en fait sans compter les violences les forces de l'ordre yi di def population bi pour xamal gaay yi ne leen peuple bi sonu nañ ñoy sànni carte ñooy sànni xeer teg ci ñoy wëlbeutiku di kaasaat à vrai dire le peuple est fatigué on nous tue on ne nous déshonore pas comme la devise de l'armée nañ ñu d'accord mais suñu ngor suñu di euh, dignité suñu fulla ak suñu fayda duñ ko perte. ay paroles yu am solo nga ciy dégg comme par exemple fi Samba posé naan kër gi amul ndox mais taana sondel moo nit suñu avenir courant pour lan la maanaam am na yenn gàll yoo xamante ne nii pour ñu am ndox c'est tout un problème ndox bu ñu jëfandikoo sax amu fa amuñu robinet teg ci tamit amuñu li nga xamante ni moo di teen mais par contre période nawet bu jotee ba mu taw ñom ñëpp dañuy taa kër yëppay te am dëkk tamit ba amuñu courant pour ñun nit utiliser dañuy dégg courant rek mais xamuñu courant pour lan donc vraiment dafa nekk loo xam ne moom la ñuy te loolu buñ ko waxee ci biir bi c'est bel et bien normal mais ci parce que BMJ dafa ñëw confirmer ne ko ñooy public am diplôme amoo xëy ñun la ñun nga doon dellu ubbi wéef ci xutba li BMJ wax aussi bari na fi trop sax ñu bari ñooy jàngee ci école publique am diplôme am seeni licence mais amuñu liggéey dañuy chômé bari na fi mais prenons par exemple doomu autorité yi genre par exemple doomu ministre yi doomu député yi doomu président yi ñoom ci école privée la ñuy jàngee ci école yi gën a cher amaana sax am na ci ñoo xamante ni seen doom nekkuñu Sénégal donc c'est juste pour xamal ñu ni jàng ba am diplôme amoo liggéey mooy waral booy jël gaal yi di dem fi nga xamante ni moo di Espagne le pourquoi parce que dañuy découragé ci seen dëkk. parce que neexul nag quoi qu'on puisse dire dañu waxante dëgg neexul nga nekk góor ci gàlle bi xëy war a jox yaay war a jox papa war a préparer sa avenir nga xëy noonu di chômer toog noonu jàkkaarlook mère bi sans pour sans pour nga jël dara teg ko ci loxoom dafa metti surtout nga jang ba am say diplôme du chômé vraiment c'est malheureux en fait c'est malheureux gars ñu warante deug donc on la bo xamante ni 2 deux minutes 13 secondes le durée mais vraiment sama gars ay message kese lañ ci jallalé dénoncé lépp li nga xamante mo nek Gal sen ci côté politique injustice ñak liggéey côté tchak, cag beeg pari foot bi ñu dara secteur yépp lañ touché donc tu sais, man man Kenza 221 bien sûr la grande chroniqueuse <laughs> Demande un respect pour le travail que vous avez fait Samba poser un BMJ parce que musicalement et visuellement vous avez assuré projet bien nice na torop a eu ay leçons de vie et lii lañu soxla ci vie. donc mention spéciale à vous parce que dafa un lu nice et maintenant, la plupart du game a apprécié gars yu bari dañ apprécier parce que gis nañ ko ci mel ni One Lyrical mu partagé wat ko di len support donc lool c'est quelque chose à féliciter. à vrai dire game neex na trop damay clash sandam depuis fi et tout ça mais euh, dañuy toll moment bo xamantene ni dañ len di soxla ñom ñep ñu bokkando nek ci même lo taxaw population bi jàppale len. ba tax na niko won One Lyrical defee j'ai beaucoup apprécié son geste le fait que mu partagé wat affaire et tout vraiment beaucoup respect à vous. Mention spéciale à Samba et à BMJ le projet est vraiment dope mais tamit mention spéciale à qui nga xam dit que di One Lyrical moom temps partagé affaire et tout yéen ma donc sama gars yi Là ñu euh, sur la vidéo de Samba Peuzzi et BMJ intitulée Brick bu leen fàtte abonné en même temps ngeen activer cloche de notification bi pour ne pas rater les vidéos qui suivent wax leen vous xalaat ci commentaire yi noo leen la vidéo vous leen gisee le sound collaboration bi et tout à vos claviers Bye naa donc quant à man nag bu vous abonner. abonné Abonnez-vous ah. abonné ma page Instagram Kenza l'officiel ma page Facebook Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo Gros bisous à vous. Love you all. la prochaine. Gars restez connectés parce que tu mois de Ramadan bi ñu ngi préparer ay émissions donc bu leen ko abonnez abonné et ngeen activer cloche pour ne rien rater yéen a ma à vous. Au revoir.